بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi xiinil ak daara yàllaw safi baqa abihim li fiika yàllaw yaa man lahul amru yaa man laa sharika lahu aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bu ñu santee yàlla julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar na Ahmadul Xadim ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram. Eh, mbokk yi noo ngi amaat mbégte jàkkaarloo ngi yéen ci seen télévision Lamfal TV. ci seen émission bi ñu duppee ëttu murit tey jii nag ñu di ko amalee ci dëkk bi nga xam ne moo di Madina Mbooba ñuy beral ab ziar akuk ñaan eh, jëwriñu dëkk bi di sëriñ Abo Baraka ibnu Cheikh Mahamadul Fadal Mbakke di ñaan sun borom mu may ko fanu gudd lool wa ànd ak wér yaram ba naal yi nga xam ne naalal na ko Cheikh Mahamadul Fadal yëpp naalal ko Serigne Touba mu àggale ko. mbokk eh, yi seen émission ëttu murit yéen a ngi koy topp ci jataay yi ci këri Serigne Touba yi waaye tey jii ñoo ngi ci dëkk bu mag di Madina Mbooba di dëkk boo xamante ne bii Cheikh Mahamadoul Fadal mi ngi ko sanc ci atum mille euh, neuf cent trente jàpp mille neuf cent trente euh, daan fi liggéeyal yàlla lu bari ci ab liggéeyam mu liggéeye ko fi dëkk na fi itam lu mat fukki at ak ñaar yoo xam ne génnul dëkk bi di Madina booba. ginnaaw dëkk boobu nag mu rafaatale ko wala mu jox ko doomam di sëriñ aboo Baraka ci atum 1965 mu ñëw sanc fi boobaak léegi sëriñ Abou génnul dëkk bi moo tax ñu fas yéene toog nii nag ak sëriñ Cheikhouna di doomam ju mag mu dendoo ak sëriñ Fadilou feggoo ak sëriñ Moustapha Fall eh, mu sëriñ Abo Baraka sëriñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñu dëkk bi nekk fii danañ seq ci jataay bi ak ay bokki taalibe yoo xam ne ñu leeral cosaanul dëkk bi ak sancub dëkk bi waaye nag sunu sëriñ sunu xarit Alhaji Falilou Bousso Tamba moom soxna maam Bousso moom Cheikh Mamadou Fadal mooy ki nga xam ne incha allahu rabbi moo ñuy amal waxtaan wi ci njalbeenu Cheikh Mamadou Fadal ak li mu fu daj incha allahu rabbi dana feeñ ci jataay bi waaye bokk yi ci seen émission ëttu murid ngeen ci gis itam lëggéeyub sëriñ Abo Baraka bi mu fi toogee di Cheikh Mamadou Fadal ak léegi li mu fi lëggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te kenn déggul euh, kàddoom kon mbokk yi damay ànd ak yéen ñu taatan kàddu yi nga xam ne moo di bàyyi ko ci euh, sëriñ Mouhamadul Fadal euh, Bousso moom sëriñ bu so tàmba waaye moom soxna maam Bousso moom Cheikh Mamadou Fadal kon sëriñ Fallou Silla moo nekk di ci machine bi seen mbokk taalibe Fallou Gallas Silla nekk ci micro bi ñu àndandoo teewlu Cheikh Mouhamadul Fadal wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa asxaabihi wa xayri xadiimihi zawi ridwaani wa tamkin mbokk yi asalaamu aleykum wa barakaatu sëñ Fallou ñu ngi jël nuyoo bu tedd di ko jëmale ci mboolem ñu fi teew ñëpp di leen sant bu baax ci ni nga ubbee kàddu yi ak ni nga lay waxtaan wi di nuyu mboolem suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom lañu ñu fekk si fii ci Madina booba euh, tàmbalee ki sëñ Cheikhouna moom Cheikh Abul Baraka ak sëñ Fallou mi ci sama ndeyjoor ak sëñ Moustapha mi nga xam ne moom itam moo nekk noonu ci sa di leen yóbbante ñoom it ca suñu way jur wa Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne moo tege jataay Cheikh Ahmadul Fadal tey kilifa bi ak dëkk bi itam di kilifa képp koo xam ne tey jii Cheikh Ahmadul Fadal moo la njaboote moo xam ci wàllu pas la wala ci wàllu deret te ñëpp sax rek day daal delluwaat ci pas bi rek. ñu ngi koy ziare bu baax a baax ginnaaw bi ñu ziaree magam ju baax ji Cheikh Mahmadul Muntaqa mi nga xam ne tey moo tege jotaayu di leen ñaanal it suñu borom yàggal leen fi lool te wéral leen lool. ba seeni yéene ak seeni mébét ak seeni naal ci yoon wi ak ci lislaam beeg njaboot gi ñu àggale ko ci seen sago te lépp ñu ànd ak ñoom di leen ndokkeel nag ñoom ñoo ñi kilifa yu baax yooyu ñu ngi leen di ndokkeel di ndokkeel mboolem njabootuk lislaam gépp di ndokkeel njabootuk Seexul Xadim gépp ci weer wu mag wi nga xam ne ci lañu nekk di weeru rajab ñu koy wax ndeyu koor te wax nga ko léegi sëñ Fallou rajab moom fu mu duggee rek xel yëpp day dem ci xew-xew yu mag yu am solo yoo xam ne dafa xew ci weer wi ba ca jiitu mooy ni nga ko waxee eh, ci guddi ñaar fukkeel gi ak juróom-ñaar ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam riñaanoon booleeg yéeg dem ca fa soob suñu boroom suñu boroom it ganale ko ngan goo xam ne gu yéeme wëlbati ko it jox ko fa nag e, sërica bii nga xam ne moom la ñu àndaaleel te muy ngeen ci sërica di julli juróom te mu doon cosaan la doonoon juróom fukki julli waaye suñu borom taw feexal sëriñ bi taw feexal njabootu sëriñ bi ñun ñëpp mu taw feexal ñu ci guddi gi Cheikh Modou Fadal feeñ ci jamono ci guddi googu yi nga xam ne moo dëppoo guddi al isra wal mi'raj moo tax saa bu rajab duggee rek xel yëpp dem ci xew-xew yu màgg yooyu ñu di ko waajal nag ni ko waxee wàccaay wi moo waral jataay bii ñu di ko defee fii ci ëtt bu tedd bi wala ci dëkk bu màgg bii nga xam ne ni nga ko waxee Cheikh Modou Fadal ba mu koy sañci daf koo sañcoon ngir jaamu fi yàlla ak liggéeyal fi sëriñ bi waaye defare fi ay jëmm yoo xam ne su ëllëgee dañuy doon ay làmp yuy leeral jamono ni nga xam ne noonu la ko defee woon ci ndindi yeeg ya ko jiitu yëpp rek te lépp tegu ci ndigal nag ndigal li benn muy doon ndigal lu fës wala muy ndigal loo xam ne dafa nëbbu ne moom ñoom lépp lu ñuy def ci kaw ndigal lañ koy teg kon loolu di lu am solo ñu am bég te loolu nag ci ñëw fii euh, war a waxtaane njaal beenug Cheikh Mamadou Fadal li nga ko waxee ndax euh, lu mat a waxtaane la xam naa dana naqaree waxtaane nag <laughs> waaye ah, li nga xam ne mënees na ko cee wax moom mënees loolu nga xam ne lees mën a dégg la ngir man koo jariñoo dana am solo ndax euh, euh, euh, Cheikh Ahmadul Fadal ni nga ko waxee lu jiitu muy doon sëñ ci wàllu xilaafa yore doxiinu yoon wi am na fu mu jaar am na ay ay ay jaar-jaar jaar-jaar yooyu yëpp boo ko seetee mën ngaa wax ne lii alxuraan di wax naan qul maa kuntu bidaan min ar Eh, lu lu jaadu la. lu lu lu lu lu lu xel mën a nangu la loo xam ne dafa yàlla ndax li ko waral mooy dafa am eh, responsabilité walla eh, yan bu diis boo xam ne da ko war a yanu te faw ñu téeñal ko faw ñu waajal ko wàccaay woowee moo indi jaar jaar yu jaar jaar yooyu nga xam ne day niru lu metti ci kaw waaye boo ko seetee ci biir lépp rek ni Cheikhul Khadim wayjuram bu baax wa sëriñam ba yaakaaram ja misaale woon tukkib géej gi rek wax ne ni'matun fii tayyi ma xéewal la gu war a ñëw waaye balaa ñëw nag faw mu am ay coono ak i tolof tolof ak yu metti yu tiis yoo xam ne da koy jiitu da koy laytaay ndax mooy tax bu bu may gi ñëwee bu bu xéewal gi ñëwee mën a taxaw mën a mën a mën a mën a mën a mën a yàgg mën a sax loolee rek kon mooy li tax suñu borom jaarale ko foofu yi ginnaaw nag mënu fa maanaam mënu fa woon a ñàkk jaar ndax euh, bu ñu seetee ci du jar ñu yéeg jëm ci yonent bi rek ñu ko jiitoon waaye nañ mën nañoo tàmbalee ci sëriñ bi rek gis nañ ne foofu Cheikh Cheikh Amadou Fadil jaar ci ay tolof tolof lu jiitu muy doon li mu doon lu jiitu may yi di ñëw Cheikhul Khadim jaar na fa ba sax xam nga euh, da ngeen dégg ñuy nettali euh, xista boobu defe naa sëñ Afi Ñang dana ko faral di nettali lu bari euh, te jàpp naa ne mi ngi jógee ci sëñ Afi mu mag mi ci bi nga xamee ne Cheikh Ahmadul Fadal jafe-jafe yooyu yi àgg na ci loolu arab yi di wax naan balaxa asaylu zuba xam nga am am yol bu dee wàcc bari lool ba weesu xur yi mm-hmm. ba xur yi fees ba mu yéeg ba àgg ca ca montagne mm-hmm. loolu ci waxin arab bu ko waxee mooy loo xam ne dem na ba jéggi dayoo waaw ci ci coonoog métit ak naqar ñu ne lekkat balaxa saylu zuba maanaam yool mi daal léegi àgg na nag ca kekke yu kawe ya ca ca fa gën a kawe ci ci suuf si bi mu demee nag ba àgg foofu ci moom te booba sëñ mag baa ngi fi te mooy yaakaaram di wéeruwaayam di cëslaayam ginnaaw boroomam ah mu ne nag lii ñuy wax njàmbat mënta ñàkk loolu suñu maam ju baax ja ci Tiwaawan di wax naan fala budda min shakwa <laughs> léeg-léeg yàlla dana àgg foofa fala budda mënta ñàkk min shakwa ci njàmbat njàmbat nag jëm ci yàlla waaye dafa am koo koy seedeel de ilallaahi kurbati la waxoon Cheikh Sidi eh, sëñ Fallou nag ba mu tollee foofa mu ne ah man dey muñ gi dey dinaa ko def ndax loolu lañ ñu sant xam nga daan wax ne muñ moom suuf rek laa ci roy ndax moom a ci doy ndax suuf ne ko sëñ Tuubaa misaale ci masaalik eh, bi muy misaal ab suuf yi ab suuf yaa ngi dëgg-dëgg da koy misaal ci suuf wax ne suuf moom dana dégg rek ku ne nekk di joggi ci kawam ku baax ku safaanu lu diis lu woyof lépp di jaar ci kaw suuf te suuf du dégg nga du jàmbat du yëngatu du tawat du def dara mu ne nag muñ moom suuf suufu ma ci eh, doy waaye nag ba mu demee ba nga xam ne àgg na foofa ba mënta ñàkk leeral wala jàmbat wala luy luy niru tawat mbiram sëriñ bi ba mu ko ko gaaralee sëriñ bi daf ko wax ne ko na na maanaam na mujj tey nga may wax say mbir nga nga may jàmbat say mbir waaw bu amul ma bu bul ma jàmbatit dara toogal te muñ rek. mu nekk ca nekk ca nekk ca yëf yi di gën a metti yëf di gën a tar danañ ñëw ci xëy na yenn yi nga xam ne mënees na koo tudd ba mu dem ba sësaat ah awut fenn fu mu jëmati fu dul gi sëriñ bi mu daal di jàmbataat mbiram sëriñ bi waaye bi mu koy def da ko def ci pexe nag danaa ah, moom kat ginnaaw ne woon na ma toogal muñ te na mujj tee nga may jàmbat say mbir te sës naa mënumaa euh, def lu dul wax ko fi ma toll mu daal di bind askayit daal ko ci wax ne ko lii may def ko daa mënta ñàkk tey nag defuma lu dul toppandoo ak roy jëmm ju baax joo xam ne demoon na ba jaar fii ma jaar mbaa fu ko gën a metti ba àgg ci jël xalimaam di bind di jàmbat ay biram boroomam ba bind xasi rek chakawtu umur yi wa dan azim <laughs> daal di daal di daal di koy bind ci kayit daal di ciy def lool yi daal di ko yónnee sëriñ bi bu ko sëriñ bi xoolaan ah fi mu ne nag de moom pexe amatut ndax am na fu mu ko jaar. waaye fekk na booba am na fu ko sëriñ bi di tegtal am na lu mu koy won yoonu mu ko bëgg a jaarale. ba mu koy tontu tontu wu ko ay wax da koo tontoo xasiida dafa bind xasiida koo xam ne da koo tënkee biyal yow ma akmaltu bi bi ka waaw bi bi ka al yawma akmaltu bi ka al yawma akmaltu moom la sëriñ bi taalif daal di ko yónnee rek waaye da waxu ko dara waaw <laughs> ah, léegi nag sëñ bi sëñ Fallou nee na ma xool xasida gi mu jaaxal ma xaw ma lu gi sëñ bi jublu sëñ Afi mi koy nettali nee na sëñ sëñ Fallou daal di ŋàbbu xasida gi dem ci sëñ Afi Ñaŋ magam ju baax joojee nga xam ne ñoo bokk soxna Awa Bousso te moom it danay déyanteeg sëñ bi léeg-léeg danay am lu muy xam ci lu muy dégg ci waxi sëñ bi mu ñëwee woon ko ko ne ko man de sëñ bi dama ko doon jàmbat samay mbir ngir tolof tolof yeeg ak maanaam fi jamono toll. Eh, te gis nga sax lu jiitu muy jàmbat sëriñ bi mbiram mel na ne xasida googee mu defoon te tudde ko li xayrika la nasku ilaahal wara amra wane na ci ne mi ngi jàmbat boroomam ay ay mbiram ak mbiri jaam ñi ndax loolu mu wax ci xasida gi lépp soo ko seetee moom mi ngi ko doon dund waaye mi ngi doon wax it ci làmmiñu ñi doon ñu doon dund lu mel noonu. ñi mu ngoog ñi nga xam ne ñoom la kon dundandoo dundandoo waaw kay. waaye bi bi bi mu waxee sëñ bi daal ba sëñ bi tontu ko bee bi kal yow ma akmaltu jooju. moom ko moom daal ñu ngi si woon ko ni ko ah man daal sëñ bi dama bind xasida gi jox ma xaw ma na lu mu ci jublu. su ñaafi xool ko mu yàgg mu ne ah, waaw moom de may de xaw ma lu mu ci jublu waaye daal ñun ñaar ñëpp maase nañ gëm ne sëñ bi moom lu mu wax ak lu mu bind rek ci ndigal la ko defe te it maanaam du bind cig neen moom du bind cig neen lu mu bind rek ci ndigal yàlla la ko defe kon nañ gëm loolu rek te jàpp ko te noppi te xasida gi ah ñu ne ca loola tolof tolof yi tegaloo natt yi tegaloo coono yi tegaloo sëñ Fallou xam ngeen demoon na ba àgg foo xam ne li ñuy wax gàddaay bëggoon ko def gàddaay génn réew mi ndax métti rek ba jiir Soxna Awa Buso génn àddina dem na ci moom jàmbat ko ko ne ko man daal fi ne génn génn réew mi laa bëgg dem waaw loolu metti na xam nga te loolu danañ wax léegi di ko waral léegi xëy na ci lañ ci mën a xam ci diggam ak sëñ bi nee na sëñ Afi ne ko waaw kon nañ ko téye rek ndeke dafa am lu ko sëñ bi di liggéey looloo xam ne bu àggee ca loola war a tegu ci ay loxoom ba mu war koo def ni ko sëriñ bi bëggee bu loola mu noppee ba sotti ba mot ba maanaam mat sëkk ci la nattu yi di jeex nag <laughs> nee na ñu ñu dégg nga ñu toog ba yàlla def jumaa ji àgg ak jàmm ci la 7 juin 1963 ba ñu ubbi ko ba noppi bi ñu ko ubbee nag su toog ba mu yàgg xelam dem ci xasida gi mu daal di xalaat ne ah kon sëñ bi bis bi la doon wax kon dafa caxoon Cheikh Amadou Fadal da koo caxoon waaye leeralu ko woon nag nee na mu daal di mu daal di woo kenn ci taalibe bi si naa fi ñëw sax day tudd tur ba damaa fàtte nu mu tuddati waaye day wax sax tur ba woo ko ba mu ñëw mu ne ko xasida gi laa nga jàng ko ba mokk nga bàyyi ba Cheikh Amadou Fadal toog mbooloo mi wër ko nga dem dégg nga nuyu ko jox ko loxo ne sefeet toog fee nag yëkkati xasida gi muy dégg mu ne ko waa ah, baax na mu daal def noona mo xasida gi mokkee mu daal di ñëw fekk Cheikh Amadou Fadal toog mbooloo mi wër ko mu joxe loxoom daal dem toog fii yëkkati xasida gi ca kaw nag di ko jàng waaye nag sëñ Fall bi mu ko déggee lépp lu mu jàppoon da ko bàyyi ne tekk ne nga xam ne maanaam nangootul ko ko jox loxo nangootul ko wax di ko diglu rek di ko diglu rek di ko diglu rek di ko diglu ba mu jàng xasida gi ba xasida gi jeex daal di koy wokk ne ko kaay kaay waaye mu ne ne ne ak mu ne ko daa mel da ngaa gisee ak mag kat nga ak mag kat <laughs> mu ne ko waa gis naa ak mag mos. Ah, waaw nag laa xam ne ko ndekete la ko sëriñ bi doon junj. ci bikkal yow bikka ci yow. ci yow al yow ma tey jii ak maltu laay mottalee. waaye lan lay mottali. loolu tudd ko woon nekkee kon mooy liggéeyam bii liggéeyam jumaa ji waaw ah, loola kon kese boobu day wone rek fa sëñ Fallou tolloon ca booba jamono. Eh, ci yoon yooyu nag sëñ Fallou. wax nañ ni ci wax naa ne ci tàmbali bi ne lu mëntoon ñàkk la ci moom ndax cër bee rëy cër bi moo war a rëy waaw dañ ko fàggul waaw cër bi boo ko seetee li ko gën a waral mooy suñ boroom dog foo taw feexal ki sëñ bi jox ko cofeelu cofeel cofeel gu kawe goo xam ne cofeel gi Cheikhul Khadim am ci ci ca kam doon liggéeyal sangam ba sëriñam ba sallallahu alayhi wa sallam te cofeel googu laajoon ay jaar-jaar laajoon ay nattu ndax boo nee damaa bëgg yàlla faw yàlla seet la ba xam ndax bëgg gi dëgg la am te bëgg gi Sëriñ Tuubaa bëggoon sallallahu alayhi wa sallam day dugg ci biir bëgg yàlla googu ba noonu mu ko waxee ci xasidaam ya bëggatuma ay doom bëggatumay alal bëggatumay kër ngir bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa fees sama xol dem na ba ne bu fekkonte ne bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa am ñollu la mu ñuy naan ba màndi ma ne màndi naa ci bu doon géej la gu ñuy lab ma ne lab naa ci loolu lépp bind ko ci xasida yi Cheikh Amadou Fadal ñëw yàlla defal ko ci bëgg Sëriñ tubaa gi nga xam ne day duggaat ci biir bëgg rasulullahi di dugg ci biir bëgg yàlla loo xam ne néewaa nañu gis ko ko am ci moom maanaam ci diggam ak Cheikhul Khadim cofeel googu nag dafa am lu mu ko jural cofeel googu moom ci ci ay mbindam sax da koo leeral xasida gi nga xam ne da ciy wone ak bëggam Sëriñ Tuubaa te tàmbalee ko ci mahabbatu Cheikh fi sirrin wa ilaani ajrat fadaila fi sirrin wa ilaani da cofeel googu fi mu ko toll moom ak lim ko jural ci ay nattu ak i tiis daf koo def nag ci anam koo xam ne boo ko seetlu bu baax mën nga ko bañ a xam waaye boo seetantalee bayit yi ci topp ci bayit yooyu da nga xam ne Cheikh Abdoul Fadel mi ngi junj li mu doon jànkoonteel ci diggante boobu yi sëriñ bi nekkee ci njaareem diggante man mën naa sax jiit na njaareem ah, ndax man man ngaa mën ngaa xam ne maanaam ca gànnaar ja ci ceyeen jolof ji ndax fukki at yoo xam ne Cheikh Amadou Fadal moom Maguette Ba ak Cheikh Moustapha taxoon ko Cheikh Khadim tàggoowuñu ak moom benn yoon ginnaaw géej gi diggante boobu yëpp ci coono yooyu la nekk. ba ba bi jógee nag coono ya dakkut mën ngaa wax ne daanaka moom da ko daa wax sax juróom benn fukki at yoo xam ne lépp ay coono laa ki nattu. que sababu bàyyi sëñ Bousso daan nettali ko waxoon keroog bi mu toogee di sëñ Tuubaa eh, te wax ko ne ko sëriñ mu ne ko Mbàkke mu ne ko. damaa bëgg ñu waat maag yow lii fi gane si muy xilaafa gi ni ma la ko mën a misaale mi ngi mel ne ñun ñaar ñii tey jii dañu doon kilifa dañu doon gat maanaam gasloo ab teen ci bëccëgu weeru koor ñu xëy yendoo gas naaju tàng jër boole suñu suñu xiif ak suñu mar bu ñu demee ba jant bi lang teen bi bënn di xel di ndox mu neex te sedd na ko sëriñ ñuy def dañuy naan as naanam dañuy muñ ba jant bi so mu ne ko ah, xanaa mbàkki muñ ba jant bi mu ne ko nag noonu rek la ñu war a def ni ndax leer na ma ne lii weesu ci suñu dund duñ ko amaat ci àddina te loolu lépp ci coono lañ ko jeexal ak i nattu ak i tolof tolof kon bu lii ñëw rek fàttalewu ñu loolee keroog la gën a gën a dëdd àdduna keroog la gën a wan ginnaaw poñu itam àddina keroog la jël lépp delloo yàlla ak sëriñ bi moo tax ci xasida gi day wax ne bëgg gi ma bëgg sëñ Tuubaa ci biir ak ci biti nag lu ngeen gis ma am ko ci lu baax rek moo ma ko may ajarat fadaila nee na ngeen lii ngeen di gis ba di ko yem ci man mi ngi bàyyi ko ci bëgg sëñ tubaa gi ci biir ak ci biti te nee na ngëneel yooyu ni bëgg ni ni ni bëggeel gi demee woon nga xam ne lii dafa fés lii nëbbu noonu it la ngëneel li mel ngëneel yi am na ci yoo xam ne mënees na cee teg bët waaye amee am am na yoo xam ne kenn mënu cee teg bët xëy na yow ma tubal saraayiru lay feeñ muy bis ba nga xam ne ci dañuy wëññi yu nëbbu yooyu waaye muy nag misaal nag cofeel googu lim ko jural xubbi lahu dahra qad afna dumuuciya is xubbi jamii alwara la shakka ansaani sama nga bëgg sëñ Tuubaa daf maa yóbbu ci ma dem ba fu ma toll damay jooy rek samay rongañ dey tuuru mu ne dem naa sax ba rongañ ji jeex na cofeel gi ma ko gi gi ma am ci sëriñ bi sama xol dafa dem ba jeexal samay rongañ dem naa ba bëggatuma kenn bëggatuma lenn fàttaloo na ma bëgg mbindéef yëpp ñu ne ko ah loolu de rëy na mu ne waaw moo tax nag mu jural ma nag coo coono bi ma jural ak tolof tolof yi nga xam ne moom la ma jural lammaa bi yal xobb tàmbali nag leeral nag lammaa bi yal xobb qad amsa ila watanin anhu taxallafa oddaali wa axdaali ne bi xamee ne ci fel gi nee saraax sama xol ba tàggale ma sama sago ci laa noppee ànd sago mel ni ku gëlëm fu ne ma jëm fa lu ne ma dugg ci nee na ci laa demee ba ñi nga xam ne dañ maa jege woon di ay bokk di ay wëllëre di ay xarit sax dem nañ ba sax ñu bari ci ñoom dañ may woon ginnaaw ñii di ma yedd dem ba bàyyi ba mujj sax far ñu bàyyi maanaam yeddaange gi sax daal may seetaan far benn yoon te xal la fa an andu dégg nga ma zaali mooy ñi nga xam ne dañ maa sopp di ma yedd wa ax daani ak ñi nga xam ne samay xarit lañ da nga nekk samay soppi nee na foofee nag fa laa tàmbali nag am nag ay jafe-jafe fa dalla moom cofeel googu fa dalla yasrau nii tawran wa asrauhu tawra ila an badaali baadu ixwaani nee na cofeel nag wéy di ma def loo xam ne nag dara jaru ko léeg-léeg mu daaneel ma nërmeel ma ànd ak jamono ak meloom ak i tënk-tënkam ak i jafe-jafeem waaye léeg-léeg it ma jóg góorgóorlu ba jéem a dégg nga nërmeel cofeel googu maa ngi moom ñuy bëre bëre bu metti nag ma ne ca loola ay at ab diir ba lenn ci samay bokk feeñu ma xëy na ñi nga xam ne mënuñu maa ñàkk laay biire ñëw nag feeñu ma nag di dégg nga di wax ak man nag naa ma lii nga nekk ëpp na wàññil defal nii man leen ma tontu leen dégg li mu tontu fa qultu maa baalu mar in kaada yaqtuluhu shawqun <laughs> wali qaala mahlan wayka min aani <laughs> waaw nee na ñoom ki may yedd moom te jàpp na daf maa bëggal lu baax xëy na daf maa yërëm ngir li may daj ci ay coono te cofeel gi waral ko maanaam wàññil nag sa coono bi tee ngaa yërëm sa bopp tee ngaa noppalu tee ngaa lekk te naan tee ngaa dallu ne mën leen waaw lan mooy mbirum cem soo xam ne nit koo xam ne jëmm joo xam ne dafa soppa sopp ab sangam ba cofeel gi di ko xaw a rey kooku lan mooy mbiram ndax kooku da koy yedd naan ko wàññil cofeel geeg bàyyi li nga nekkeeg noppalu la lekkal déedéet <laughs> da ngeen a war a doxale moom neneen nee na loolu laa leen tontu waaye nee na foofa kat yëpp ma fa faqultu kalla maa lànk nee mën leen maa lànk du ma noppalu du ma nelaw du ma dégg nga du ma du du ma lekk duma naan cofeel gi ne ci sama xol te te teemaa nelaw ndax suñu misaaka waxoon gis nañu ba cofeel <laughs> ma maa ngi mën déglu ne ne ne ne ne ne ngelaw <laughs> foofee suñ fal dafaa tolloon nga xam ne booba wax nañ ne mënta daanaka samp sax kër gu taa gu taxaw. daanaka mënu ko woon moom daal wax léegi ne dem na ba àggoon ci ne day gàddaay génn waxtaan ki soxna Awa Bousso am nañ ay leetar yoo xam ne mu ngi fi yoo xam ne jamono yi muy sanc Madina gi ak ak dégg yi mel ni moom te de ko bi bindanteeg maanaam sëñ saa jenn leetar yooyu boo ca delloo da nga xam dëgg dëgg nag jafe-jafe yi samat faal dund boobu jamono waaw te te la ci gën a néew mooy toog doo yor dara dara doo ko te doo ko séntu fenn loolu la ci gën a néew bokkul ak tawa yi dal ci kawam ak wax yeeg yooyu yëpp xëy na dañu yoo xam ne am na wax naa ne néew ko ta waxtaane waaye am na ci yoo xam ne xam ngeen xam ngeen ci lu bare bare bare jéggi na dayoo nee na ma daat ne fa qultu kalla déedéet mukk ci àddina du wàññi mukk cofeel gi du ma génni sama xol ci cofeel gi du ma génn cofeel gi sama xol te it ne am naa gêne wala wala wala bakkaar wala lenn ci sopp gi ma sopp Sëriñ Tuubaa ba mu jural ma lii fama alayya min xarajin aw ma gêne aw ma ci du may naqari sama xol aw ma ci tikki tikki xol in kaana shawqiya fi cheikhin lahu sha'ni li feek sama cofeel gii ma tàggaleeg sama sago nameel gii ma am ndax sawqu day jóge ci xob ci cofeel lay jóge mooy ak nameel feek nameel gi mi ngi dellu ci sama sëriñ bi nga xam ne sama lépp moom laa ko jox muy Cheikhul Khadim faale wu ma loo mën dal rek baax na <laughs> bayit yi ak yi mel ne moom boo ko doon settantal da ngay xam ne kon Cheikh Amadou Fadil sonnoon na te cofeel gi bokk na ci li ko jural coono boobu bëgg Sëñ Tuubaa ndax booba it wax naa ko sëriñ bi mu ngi koy waajalal masuliya boobu yi nga xam ne keroog ba mu jaayanteek moom te bind bayitam yooyee yaa ayyuha cheikhu nafiisul murtaja yaa fatihan maa qablu kaana murtaja biatu bunuwatiya bil iraada lakum li kay oxda bi xarqi aada ba mu jeex won ko ne ko yow yaay sëriñ bi nga xam ne yow lañ yaakaar yaay sëriñ bu gànjaru bi bi kenn amut ni mu ko daa xanaa Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa mi ñu am kenn amu ko Cheikh Xadim mi ñu am kenn amu ko yaa ayyuha cheikhu nafiisu an nafiis ku seer ku gànjaru ku mel ne wurus al murtaja ki nga xam ne moom lañ yaakaar addina ak alaxira yaa faatihan maa qablu kaana murtaja yow mi nga xam ne buntu ba ba nga xam ne dafa tëju woon muy buntu jaayante dafa tëju woon bis bis ginnaaw sallallahu ak sahaaba yi ak xayra xulafaa yu ko wutu Cheikhul Khadim moo ko tijjiwaat ci réew mi ak ci gox bi ginnaaw nag da ngaa ubbiwaat bi jaayante nag maa ngi lay seedeel na bis ni ngi tey jaay naa la sama ndoom gii dox sama diggante yow jënne ko ak taalibe bil iraada biatu bunuwatiya bil iraada lakum gis nga ni mu muy waxee sëriñ bi ci ngay xamee fi fi sëñ bi tollu ci xolam. cofeel gi maanaam lëkkum waxun maanaam lakka waaw yéen sëñ bi yéen. waaw mel na kuy wax ak mbooloo. ngir wormaal gi ak fonkeel gi kon jaay naa la njureel gi ginnaaw ba la ko jaayee ba noppi nag ba nga jox ma taalibe gi ak li ci war a aju lépp damay jëlaat njëggee ak taalibe gi ak lépp ahdaytuha lakum bi xeyri man ni min baadi ma shtaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi xeyri man ni ginnaaw bi nga jëndee yëpp ci man nag joxaat naa la lépp ci lu dul ñaxoo ci lu dul santaas wala yaakaar ci lenn lu am ëllëg bëgg naa daal nga nangul ma ko rek mu jeex bi mu defee loolu sëriñ bi ne ko ah andi nga ñaari masala de ci sa bayit yii te booba loolu ci yéen jolof la woon xam nga bi sëñ bi ñëwee njaarim rek lam ko lam njëkk a firndeere jaayante gi ci jëf mooy kër gu mu defaroon ba mu àgg ba mel na war a mel ci njaareem da daal di yëkkati booleeg bayit yooyu jébal sëñ Tuubaa ne ko lii laay firndeel a jaayante gi bi mu ñëwee njaareem rek. am na sax fu muy nettalee naan bayit yi mu ngi ko defee njaareem nga xam ne jaayante gi ma naam ci yéen jolof waaye bi mu ñëwee njaareem nag la daal di bind nag la daal di ay bayit daal di ko koy jox nag boole ci kër googu sëñ ba mu koy tontu daf ko ne da ngaa indi ñaari masala ci ci sa way ñaari masala yi benn bi mooy dafa am loo jaay ci ku jaay ku nekk ba bañ jox la njëg yaa moom sa njëg maanaam la nga jaay ñu jox la ko yaa ko moom beneen bi ci des mooy boo yemoon foofa rek mu doy sëkk waaye da ngaa wëlbatikuwaat jëlaat la nga am maanaam la nga amee ci jaayante gi muy taalibe geeg njëg gaag fay gaag yëpp jëf ju tol noonu ku ko def ku tol ne sëñtuwaa jur la nga mën a jël ndoom gi njuréel gi jaay ko attan koo ñàkk xeet mbaay gi xeet ndoom gi ba mu set wecc loolu sëñ bi la cay jógee ci tuyaaba ak yiw kenn xamul nu mu toll sëñ Fallou boole loola ak jëmmi bi gi ci boppam jébbalaat sëñ Tuubaa addiya muy ñaari masala kon mu ne ko nag li ma lay tontu ci ñaari masala yooyu mooy li suñ borom wax ci alquran rek foofu rek laa lay fala taalamu nafsum ma uxfiya lahum min qurrati ayun jazaan bi ma kaanu yaamaluun suñu borom day wax ne ñi nga xam ne biñ nekkee ci àddina xamoon nañ li leen bàyyi ci àddina muy jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla ci jaam ñi ak ne ci dañ war a ne topp ndigal ak bàyyi tere di taxaw guddi di naafila di woor ba bëccëg yi di dimbale jaam ñi comme Cheikh Amadou Fall ni mu ko daan defee ci ak dundam ñooñu day bu ëllëgee lañ doon daj ci coono ak tiis ak i naqar buñ ñëwee àjjana ba ma fay leen lama leen di fayee ëllëg la ma leen dencal ëllëg lu nit mën a xalaat lu xel rëy rëy mënoo xalaat mukk ba sa xel daj loola ndax day doon loo xam ne nopp mësu koo dégg bët mësu koo gis mësta toq tam ci xelum damaa doon mu di ko xalaat mooy maa uxfiya lahu min qurrati ayun qurratu ayun boobu nag nga xam man mën nañu wax ne moom la Cheikhul Xadim dencaloon Cheikh Amadou Fadal naaru gànnaar bii di Mouhamad Abdullah ibnu Ubayd Rahmaan al-Alawi moom nga xam ne moo def nusatu nadim def ko ci sëñ Fallou wax ay jaar jaaram ak coono yeeg ndajek njàng meeg lépp bi mu agsee ci xuratu ayun jooju dafa ne bokk na ci loola mooy xilaafa gi ko sëñ Tuubaa dencaloon te mu yelloo ko nag nga xam ne andi na ci ay ay ay bayit yu yaatu yoo xam ne waxtu yu day xat kon sëñ moom xamoon na ne Cheikh Amadou Fadal ëllëg am na lu muy yanu ji ëllëg te balaa yenu loola am fu mu jaar ba tax mu mel ne ku ko seetaanoon donte du seetaan waaye mel ne ku ko seetaan ndax ndax daana daanaa dégg ci suñu sama sama maam joo xam ne eh, dafa dafa doonoon mag te doonoon bokkum suñ fàllu itam daan daan daan ko jege lu bari mu daan nettali jafe-jafe suñ fàllu yooyu ba àgg na ci nee na ci Ceyeen Jolof Ceyeen Jolof bi sëñ bi nekkee Ceyeen Jolof booba kër sëñ bi ci biir kër gi xéewal gi macha allah dara du maanaam lépp ay doy dara manqué wut ndax boobu sëñ bi day am ay ay ay ay ay gani naari gànnaar rek ay dégg nga gani doog ñëpp ñu koy seet si waaye bu ñu ñëwee dañ leen di ganale ba tawaarkal la lépp luy ndawal lépp luy dégg cere lépp luy nangam day dem ba day dañ koy wotti sax daanaka ci dégg nga ci ci biti. waaye booba nee na Cheikh Amadou Fadal daawut sëñ bi daawul nangu mu mos ci dara lu toll ne pepp dugub bëgg gën a néew ci Ceyeen Jolof nee na booba xiif bi xiif bi daana àgg ci moom foo xam ne da daan dem ba mënatu koo muñ pour mu taxaw jaamu yàlla day jël sa moom Cheikh Amadou Fadal def ci ndox dem ba ci ab jànj mu sotti ca ba mu gajaf mu jëfandiku ca ba dëgër delluwaat ci ab liggéey loolu daana ko def te booba kër Sëriñ Tuubaa dara manqué wu fi ci biir bàyyi Cerno Galaw Ngal suñu maam suñu baay mas dégg naa muy nett li wax ne sëñ bi naa am ay naari gànnaar yoo xam ne bi ñu ñëwee gàtt bi mu leen war a terale Cheikh Amadou Fadal ak Cheikh Mamadou Moustapha magam ju baax jooju ak euh, maanaam way juru dégg nga bàyyi Cerno moom yi di sëñ maanaam on Mbàkke Galaw Ngal mm-hmm. ak seen seen bokk yu baax aleykum salaam bokk yu baax yi nga xam ne ñoom lañ maasaloon boobu jamono te nekkoon ci waxtu tarbiya ñoom la sëñ bi woo bañ ñëw mu ne leen yéen kat yéen laa bëgg ngeen maanaam lewetal gàtt bi bu ngeen ko lewetalee ba noppi na ngeen ko defar fees ko ba mel na war a mel soo koo joxe ñuy dégg yéwénal ko waaye bu leen ci mos bu leen ci xalaata mos aw dogg ndawal bu gën a ndaw ndax yéen seenu ndawal ñëwagut su ngeen ci lekkee dara bu ëllëgee da ngeen ko bëgg mu jafe leen su ngeen ko muñee nag tey jii bu ëllëgee mu yomb leen kon loolu da ci dégg ne ndekete jafe-jafe yooyu Cheikh Amadou Fadal doon dund am na ci yoo xam ne dafa bokkoon ci xeetu tarbiya du ko seen Xadim doon tarbiya ndax mënoon na koo bàyyi mu xewlu ci xewal gi ci kër gi moo ak Cheikh Moustapha ak seen bokk yu baax yooyu waaye la taxoon mu mu xañ leen loola mooy ëllëg ëllëg a ngi ñëw te ëllëg jooju bu ñëwee xéwal yi dana bari lool loolu Cheikh Abdoul Fadel jaar na foofu ci jamonoy Sëriñ Tuubaa nga xam ne boobu sëñ baa ngi fi jóge na ci géej gi dem na gànnaar yëf yi ubbeeku na xéewali ba tawarkal la muy jël satala di tooyalu janj di jëfandiku loolu soxna fen ña nga daana ma ko nekk li di takk ndigg li di liggéey te te du ko yàqal dara ci kaamil yi muy bind ndax booba sëñ sëñ sëñ Tuubaa mu ngi leen di tarbiyaa ci bind ay kaamil ñuy bind yi kaamil ñu nett li ba tàyyi na Cheikh Abdoul Fadel lu mu néew néew néew néew bindal sëñ Tuubaa ñett moom dañ naan waaw ñeent fukk waaye li li li li mu néew néew moom ñaar fukk juróom-ñett mat na ko moom. te te kaamil yooyu am na ci yu ci bari yoo xam ne ci waxtu woowu yi mu nekk ci jafe-jafe yu méttee ci la ko doon bind. nga nga xool koo xam ne boo xëyee yow wax ma la ndékki. waxtu yooyu bind waaye du xam ku ah loolu xam nga ne ku sama waa ji sëñ Fallou meeg sëñ mi ko la ko bëggoon def lool. tey jii nga xëy bind robo wala nga bind nisib joo xam ne doo ndékki doo añ te doo reer wala boog maanaam euh, tuuti ngay mas as cuusa cuusal suusal su ndaw wala wala as as ku wéru satala yaakaar naa sama gars yi ku la ko bëggoon def loo de <laughs> ci passif ji ak yitte ma gën a gaaw keroog la ma gën a rafet keroog it la gën a sawar ci li muy def du ko yàqal dara ci jaamu yàllaam du ko yàqal dara ci sàkku xam-xamam am na ci waxtu wax ne boobu mi ngi ci njàngum xam-xam mi bi sëriñ bi jógee Ceyeen ba ñëw njaareem it taxul nattu yi jeex sëñ Fallu am na fotoom boo xam ne fotoom bii bii muy maanaam nekk nga xam ne ci la ajee Makka nga xam ne ci ñeent fukki at lay toll photo boobu dong rek boo ko xoolee rek faaw nga am loo ci jànge <laughs> xaw ma waaw boo jàkk photo bi rek da nga bi dana la jàngal circonstances yi sëñ Fall doon doon dund boobu jamono xam ne kii ah, ah. <laughs> ci ci woowu melo rek da xam ne kii moom de nga sonnoon na waaye nag dara nag ni ko waxee rek boobu fekk na la la la mu war a xam-xam na ko nam na nam war a mel-mel na ko ndax ndax booba jàngal lañ ko ba mu ne ar ñu yar ko ba mu ne nër mu doon ki mu doon am ñeent fukki at nag waaye teewul nag muy dund loolu nag amut kenn ku muy jàmbat mbiram na ku dul yàlla li gayrika la nasku ilaha al ara li wa ma in lana illa yàlla yow dong li gayrika ñeel keneen ku dul yow yow dong dong dong nasku la ñuy jàmbat ilaha al wara yow mi nga xam ne yaay bóoru mbindeef yi suñuy mbir ndax ci yow dong la ñu war a wéeru nag te ci yow la ñuy wéeru xasida googu gis nga bi mu koy def booba mi ngi ci diggante yooyu xat-xat yooyu teewul teewul itam fu mu gis ne bu fa demee war na faa mën a wéetal yàlla man faa jaamu yàlla man faa sàkk lu lew man faa rawale pas-pasam ak ku taalibeem da koy def loolu moo ko indi woon fii xam nga madina booba nga xam ne mooy madinatu salaam jëmmi madinatu salaam ji rek sax ak yam doon dund ci boobu jamono ba jamono bi nga xamee ne suñu kilifa gu baax suñu doom bàjjan la sëñ sëñ Abdou Salaam moom sëñ moom maanaam soxna bu sërif soxna bu sërif doomu sëñ Afi jamono bi sëñ Fallou yi nekk di di sanc dëkk bii ci la gën a jamono sëñ Fallou moo joxe tur wi ne nañ ko tuddee Abdou Salaam ndax ñu am jàmm ndax ñu am jàmm waaw ci fii ci Madinatu Salaam addina booba nga xam ne booba bu fekkonte ne danga naan sëñ Fallou li muy daj da koy daj ci ci maanaam jëmmi boppam mooy xëy na ñàkk lum mu dépensé wala ñàkkum tabaski dañ koy nettalee wala tawat ju koy dal ju koy gaar te te yooyu yëpp amoon wala ñàkkum añ bu yemoon foofu rek xam nga kon mu neex waaye yàlla nattoo ko nag ñoo xam ne mënees na leen tuddee ay noon ñuy yëkkati lu ne di ko te ci aw de nga maanaam ci ci ci ab darab ci ay mbokk ak ci ay jàmbur da ci am loo xam ne yow tabax waaye lu ne dañ na ko te looloo gën a metti ndax nattu bi gën a metti ci nattu yi nag mooy yàlla nattu nattu la boo xam ne dafa jaar lu ñu xam loo xam ne jàpp nañ bu ko tegee ci sab der mu ñaaw ñu teg ko ci sab der te dara amu saalitoo waaw mu ngoog amul benn fu muy toogee wax ne ah déet loolu loolu bi su ko su ko su ko su ko woon kon kon du baax kon maanaam dara du ko jar ah. dama xamatul Baye Thierno Fall wala kenn ci ñoom Baye Thierno Fall am na bis mu koy defal muy jàpp ci tiis yooyu ak ci tënk-tënki jamono yooyu métti jamono boobu waaye Thierno xelam dem ci li sëñ Fallou di dégg ak liñ koy teg ak liñ koy wax àggoon nañ ci daan ko bind ay lettre di ko yónnee am na koo xam lettre ba mu ko bind ba mu ko bindee ba àggal sëñ Fallou da ko woo ba mu ñëw mu ne ko lii yaa ko bind mu ne ko waaw ne mu mu ne ko jàng ko ma dégg mu jàng ko ba ba màgg mu ne ko màgg yow dañoo bokkut rek de waaye kon du baax daal di ko ne ndax man de dañ maa yow na kenn yaru la moo tax nga sañ lii waaye su ma su fekkonte ne maa ngi yam kon tey gi dina demee neneen waaw ne ko waaye jéggal naa la demal. bay Baye Thierno di ko defal muy jàpp xelam dem ci li ñuy daj ndax bu fekkonte ne moom jëmmam rek la du du du du solo waaye dafa doon maana borom njaboot. daa waaw ku bokk ci moom. ku bokk ci moom yaa ngi dund jafe-jafe yooyu. maanaam boole nañ la ci. muy jooy fi mu sëgg di jooy. suñu fàllu ko lu xew. mu ne ko xanaa am lu ma métti rek mu ne ko loolu lu mu doonati mu ne ko li ñu lay teg di ko teg sa waa kër yii nga mën koo saafara te saafara woo ko loolu rek ma métti <laughs> nee na mu ne ko loolu dara waaye ceerno du dara lépp day jeex loo day jeex rek. waaw daa daa ko ne loolu tey jii su su su ma neexoon tey jii jeex waaye addoo daa amul solo am na ci yeneen yu ci teg baay bàyyi ceerno moom yi xool loolu sëñ Fallou jàngat ko gis jikko jut ju ju màgg ju te ju ju nga xam ne jikkoy sang la mu analyse ko mu yàgg mu ne ko mbakke seddu naa ci yow yoo xam ne day néewaana a gis ko ci keneen baa mu am ci feneen jikkoy sang la mu ne ko ah, yéen a ngeen la mu ne ko ñu tooñ la tooñ gu fes gu ñëpp xam nga xam ki la tooñ mën a fayu jekk ko jekk ko biir mën a fayu jéggal ko te yàlla tax al afu indal maqdura mu ne ko ah koo ko niru na waajur bu baax waa nga xam ne keroog ba quartier mbaaxaan nga dëgmal see daarul mën naan te yéene wu loon lu may aw ay hmm. te sëñ bi taalif xasida rabbi maanaam bi ma maa yashrahul azaan xat fajaa hmm. te jox ko Mahamad Fall mu di ko jàng hmm. booba jundullahil xaaliboona yaa ngi teew di ko diglu ne ko sa ndigal dong la ñuy diglu loo santaane ñu def ko ci mbaaxaan ak karchem gi waaye lu mu wax yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamii al wara yàlla yërëmal bi def yëpp ndax yow ëpp ëpp nga di fayanteeg say jaam yaa man jalla an qawat qawat mooy di fayeeku ngir deret wala yu mel noonu mu ne ko nit ñu tooñ la bàyyi Cerno ne ko ñu tooñ la nga xam ki la tooñ ñëpp xam ko nga jekk ko bu wér ba ñëpp xam ne ñëw mi jekk nga ko mën ngaa fayu nga jégal ko te yàlla mu ne ko ak ban mu ne ko nga xam ci nit ay sikkam ak i xam ci moom loo xam ne sax moom ci boppam xamu ko moom moom mi nga xam ne mooy borom sikk sax xamu ko waaw nag jege la lool nga mën koo weer bés bu set nga weer waaye nga suturaal ko te yàlla tax mu ne ko loolu ci yow laa ko mu ne ko ak ci des mooy nga xam say nax ba noppi nangu caa tàbbi <laughs> loolu nag moom <laughs> xam na ko ah xam na sëñ sëñ Fallu bu baax ah, mu leer na la kii da nax waaye nax yëpp nag ki yàlla la jëm rek ak sëñ beeg yooyu rek ndax ndax lu lay li maqaama la mm-hmm. nga bàyyi ca noona rek li gaa yi naan ko ci biir <laughs> waaw bàyyi ko ci biir rek ba moom mu jàpp ne moom moo la fekk na yow sax yaa ko ndax yow fekk na yow la nga bëgg am nga ko ba noppi waaw ko nettalee nag daaw jéeg ndeysaan ci kër Baye na Diaw suñu nijaay ju baax te yàlla moom ko bu yàggut di sëñ maam sëñ maam Mor Mbacke Cheikh Amadou Fadal waaw yàlla ko leer ak ak njëgal ba mu kàddu dafa dafa daa am beneen bu mu ci tegaat daan ne boobu sëñ Falloo ko ci teg daan ne sëñ Fall day ba Baye Thierno waxee noonu bàggal dafa ne am na beneen waaye daan ne mooy yàlla may la nga am cër ci sa maanaam sa borom cër boo xam ne àgg na ci natt bu rëy rëy jóge ci kaw wut si suuf yàlla déey la ko nga xam ne natt bii bu ñëwee kenn du ko àttan nga bàyyi ba guddi jot nga jóg di jëflanteeg natt boobee di jëflanteeg moom di jëflanteeg moom di moom boo wëlbati ko sànni ko foo xam ne bokkul ak foo ko taxoon a jóg te boo xëyee kenn du ko xam ci yow <laughs> waaw moo gën a jafe rek waaw kon nga jàpp ne kon est-ce que la sëñ Fallu daan daj ndax kon loolu bokk ci woon mën na caa bokk ndax ginnaaw moom dafa war a doon Sëriñ Tuubaa te wax ne may Sëriñ Tuubaa te Seexul Xadiim ca gànnaar julli na ci jàkk ji ba génn mel ne ndox suuf da koo laal mu àgg suuf yàlla teg ko lu tii lu metti ci ay fan yoo xam ne bu jógee rek mooy dégg na noddu allahu akbar waaye buy sëlmal ci jàkk ji rek loolu ñëwaat ba sëñ Basiru nee na àgg na ci foo xam ne naaru gànnaar boo xam ne ñeewante na lool sëriñ bi ci tawat ji ak ni mu mettee ci moom ba ba woo ma ma ñëw mu ne mu daal def benn ñaan ay tawasulaat jox ma ko ne ma boo demee ne ko ne ko jox sëñ bi mu ko jàng ndax mu ngir rek ñeewante ko yooyu sëñ bi daal gis ne neen daal di muñ ne ko ah, man nag suñ borom dafa araamal ci man may saafaroo ci lu dul alquran sunna te loola sëñ bi bi bi ba mu ci jógee daf koo leeral dafa ne bi bi mu jógee ci jàkka ji suñ borom da ko ne Ahmadu nee ma wuyu ko mu ne mu ne ko ah sa sa gaa yi de sa gaa yi la topp te yaakaar la maa ngi leen di waajal natt boo xam ne bis bu dalee seen kaw bis bu wàccee seen kaw kenn du ko àttan ci ñoom ñoom ñëppay faagaagalu ba jeex mu ne ko ah, loolu lu ko waral mu ne ko waaw ndax ànd gi ñu ànd ak yow maanaam dajeeg yow jamono nga wootee ñu wuy si la topp la rek loolu rek dama leen cee fàggul ëllëg maxaama boo xam ne mënuñu koo jëf ci julli mënuñu koo def ci woor mënuñu ko def ci asaka mënuñu ko def ci lenn lu dul loolu yi ñu ko defee rek képp lañ ko mën a amee nag bëgguma boo liggéey ku ma jàmm ëllëg ñuy ñëw ma jox leen daraja yooya ñu naan ma lu tax nga jox leen ko faaw ma seet lu tolloog ci natt ma teg leen ko même buñ ko attanu sax buñ jeexee sax boo liggéey bu ñëwee ma jox leen lool yàlla jaay nee sëñ bi ne ko ndax mën naa leen koo yanul mu ne ko awaaw ah, booy bëgg rek nee na mel ne asamaan juróom-ñaar lañ ma sëf ma àgg sëf nga xam loolu def na ko ay yoon na ci gànnaar googu kon Cheikh Ahmadou Fadal itam dund na lu mel noonu ci diggante yoo xam ne diggante mag yàlla rek la ndax li ñuy gis ci kaw lii rek wax yeeg jëf yeeg yooyu moom saa rek la waaye li mu doon dund ci biir moom loolu moom rek ko xam moom kon moo war loolu mu doon sanc dëkk yii ngir bëgg na safeet ba mën a toog foo xam ne dana fa mën a wéet dafa jaamu yàlla dëkk bi ñu nekk tey jii cosaan loolu la xam naa suñu mbokk yu baax yi bu ci ñëwee dina gën a yaatu waaye madinatu salaam la ko tuddee nga xam ne mooy dëkku jàmm ndax booba coow li bari na jafe yi bari na nattu yi bari na mu ne kon tey sanc dëkkub jàmm daaru salaam aha mu ngoog sëñ bi muy jógee Mbàkke ba li ñëw daaru salaam boobu xam na ne mi ngi ci ay jafe-jafe mu ne kon nag li ñuy wax jàmm gën kon nañ dem sanc jàmm gën muy daaru salaam mu ñëw sanc madinatu salaam wax naa la sëñ Salaam mooy bu ñu gañee jamono def ne dañ ko tuddee Abdou Salaam ndax ñu am jàmm <laughs> kon loolu mënees na ko cee mënees lim ko jural nag gis nañ ko xam naa ne waxtu waa kii bu rek ñu tënk ci ba bis ci xilaaf mu mujj xilaaf ak Cheikh Moustapha nga xam ne booba mi ngi yitteem jëpp mi ngi ci liggéeyam jumaa ji moom Cheikh Abdoul Fadal ànd ak magam ju baax jooju rek te Cheikh Cheikh Moustapha moom it ku ne xam na ne daj na loolu ndax Cheikh Moustapha moog Cheikh Amadou Fadl la ñoo tarbiyandoo ci diggante gànnaar ak cee nag ba ci njaarim ci ba bi leen sëñ bi jox jox ndigal ñu ci seen dëkk yi kii Xusnul Maab Tindodi kii Ndindi booba mësuñoo tàggoo ci benn yoon kon moom it am na fu mu jaar ci yu mel noonu waaye bi nga xamee ne Cheikh Moustapha mi ngi ñibbi àjjana Cheikh Amadou Fadel war a toog dafa fekk booba réew mi adduna bi sax laay wax nekk ci crise mondiale ndax booba ñu ngi ci mujjug xeexu deuxième guerre mondiale. muy kon 39 maanaam 39 40. 45 guerre bi di maanaam soog jeex ñu am ay tënk-tënki jamono maanaam crise mondiale am Cheikh Amadou Fadel jël xilaafa gi. bi mu koy jël fekk na ko ci tolof tolof yooyu noonu mu ko misaale woon bi waxtaan ak. waaw amul mu ngoog lenn. Mhm. lu dul rek ngëm gi ak pastéef ji mhm. ak bëgg gi lépp day tegu ci bëgg gi nag bëgg gi day delluwaat ci bëgg sëñ Tuubaa gi waaw ndax bëgg gi jur yooyu moo moo moo maanaam moo jur jafe-jafe yi moo jur natt yi moo jur gàllankoor yi waaw moo tax nag xéewal yi nag ñëw ndax yi nag ni'matun fi tayyi niqma waaw wala boog euh, mexnatun mhm. wala boog maanaam minhatun meex na mooy may koo xam ne dañ koo muure dañ ko laxasaaye ay ay ay coono ak ak ak i fitna comme cukkib géej gi noonu la mel rek moo tax nag bi nga xamee ne xilaafa gi ñëw na nag ah mu daal di xam ne kon la ko sëñ doon dig ci ci xasida bi kal yow ma akmaltu jo kon ñëw na yàlla defal ko feex it nag nattu yi jeex ndax nattu yi nag nattu du wéy daa am fu mu yem suñ borom dafa xataa xataa juñ wax wala nabluwannakum xataa naalama almujahidina minkum wasaabirina wa nabluwa axbaarakum xataa jooju dafa am ci ci maanaam ci naxwu mooy dafa am fu muy fu muy yemi waaw man yàlla danaa leen nattu ba keroog may xam nag dëgg-dëgg ne yéen ñii ay ñu mën a muñ ngeen yéen ñii ñu mën a jihaad ngeen bi ko suñu borom jaaralee foofu nag ci taxliya ko raxas ko donte taqul woon taq taq gu ñuy wax raxas waaye ci waxin ngir waajal ko sax laa laa bëgg a wax ba masuliya kubra boobu muy xilaafa geeg war a yë dégg nga yéwénal mbiri jaam ñeeg yëpp mu war koo dégg nga taxawee war koo saytu ci anam ga gën a rafet te mënul am ci lu dul wàccaay wii nag mën ngaa wax ne kon juróom-benn fukki at yëpp ci loolu la ko jeexal boo ko doon seet ci at lislaam yi dana ko mat ñoom gépp ci loolu la ko jeexal ndax boo ci génnee ati daara jaag ndax bi bi sëñ Tuubaa nekkee ci géej gi rek du ñu la amut <laughs> waaw moom moom loolu moom da ci am wax damay wax rek day day waxi télé ak rajo mu ne su waaye ba ci bi mu doonee xalifa sax natt yooyu da am am na ko loo xam ne sax mi ngi ko doon doon dund ba ci jumaa ji dégg nga tàmbali na ko di ko liggéey mu ne wax nañ ko ci am na ci loo xam ne tuuma joo xam ne bañ ko waxee dana ah joogi nag ñu miim ko ba mu set moom waaw te bañ demee ba nag dañoo rey nit suul ci biir jumaa ji dana ah, loolu ëpp <laughs> na nag nañ ko sulli ji ñu dem sosoro bi fi tey jii fi mu nekk ñu gas ba mu xóot fañ ne fa lañ ko suul gisuñ fa dul ay téere ay dégg nga barkeelu sëñ Tuubaa ak i yooyu rek ah loolu nag moom faaw ñu mim ko moom jooju moom du ma bàyyi muy dem waaw kon sëñ Fallou sa maanaam sa turandoo lum dajut amut am na ko loo xam ne moom daa neexut a wax am na ko loo xam ne léegi làmmiñ du ko laal <laughs> waaw foofu daal fa laa bëggoon a tënk moo andi na xéewal yi yëpp nag di ko yàlla defal cofeel gi gi nit ñi am ci moom nga xam ne ñi ko gën a bëgg mooy ñi nga xam ne ñoo ko gën a uh, umpule ci wàllu xam nga xam ne xëy na maanaam uh, ju jóge na fi lu yàgg ñu a feeñ ca moom waaw ñooñu ñoo gën a bëgg sëñ sëñ jigéen ñi gone yi loolu lépp te li ko waral mooy rek ak bëggam sëñ Tuubaa waaye nag bëgg sëñ Tuubaa googu nag liñ naan lëf euh, nu nu ko waxee maanaam euh, sa sëng day dégg nga lëf lay jar ca ca mbaaw <laughs> mbaaw xaw ma <laughs> loolee ba mu laata am loolee nag bi nga tàmm nga ko balaa ne nux nuxus lëf ne war war as lëf waaw ah, faaw rek dana dana naqari mosa loolu nag kon bu ñu koy waxtaanee dañoo bëgg ñu jàng ci nag dañoo bëgg ñu jàng ci waaw ah, man mu ñàkk solo mi nga xam ne tekkiwu ma dara rek am na ay tolof tolof yu ma doon jaar yoo xam ne ba ma ciy génn suñ fàllu laa gént mooy nett li jaar jaar yi ci biir gént gi may jooy wallahi am na loo xam ne naa ko wax ngir sant yàlla yàgg na ay at ci ginnaaw waaye ba ba may nett li jaar jaar yi mel ne haut-parleur lañ sëpp gis lañ maanaam këpp gi samay nopp muy nett li fi jaar ba may jooy ci biir gént ba mu naa ma looy jooy lii di ay jaar jaar dong maanaam jeex na jàll na ba nopp ba ba ba ma ci loolu la da da maanaam daal di jeex tàkk kon ngir sant suñu borom xam ne Cheikh Amadou Fadel jaar na fii soog a am lii li ko yàlla defal da cee dafa dafa loolu mu naan damaa wettiw ñàkk wettee ci ciw ñàkk ak naan dama ko dama ko kañ waaw dama ko kañ kon kon lu mu sonn la soog koo am loolu nag mooy solo si waxtaan bi kon mooy ñu nettali ko ñu xam ne ndekete kat ku mas a bëgg lu baax faw nga sonn faw nga jaar ci ay jafe-jafe faw nga jaar ci ay tolof-tolof yàlla soog laa jox lu baax bu la moom dégg nga jeex na suñu borom day wéy ba faw loolu andi màggal Tuubaa gi gis nga moo tax sëñ Tuubaa it ko li mu ko fayee nag waaw ak bëggam sëñ kon yàlla ñu dugg ci biir pay googu doon ay ay taalibe sëñ yoo xam ne dañuy jeex ci moom tàkk maa ngi jégg lu baax na ci waxtaan ndax day day tomb bu xaw a jafe te xaw a metti tuuti <laughs> waaye ah doy na waar waaw ñu xam ne daal li ci jublu rek mooy rek jéem a rek xoolaat nafaraat bu baax rek jaar jaar Cheikh Mouhamadou Fadal ku baax koo xam ne jaar na fu metti ba am li mu am ngir ñun tam ñu mën caa roy. jërëjëf Cheikh Mouhamadou Fadal waaye li ñi nga xam ne ñooy suñu bokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi seetaan ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci euh, YouTube bi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci rajo yi ñu xam rek ne dëkk bi moo laaj waxtaan wi euh, waxtaan wi mooy dëkk bi bi ko sëñ Fallou sañc fi ko àdduna toll woon ak jafe-jafe yi mu doon dund moo sabab ñu fàttaliwaat nit ñi sëñ fallu mii ñu gis tey jii nga xam ne léppam xéewal la ah, ba ko bëgg xéewal sax na naa ñaan sëñ Fallou sëñ fallu ma ko jiitu nag lañ doon indi bañ xam ne xéewal gii kat natt bi rek moo ko juróon eh, ñi ngi sant baax a ma Cheikh Amadou Fadal kon xam naa sëñ fallu Ndiaye su manoon a jege si tuuti rek eh, andil ñu nag comme moom waajuram bari na bataaxel yi Cheikh Mamadou Fadal yoo xam ne ci loxoy waajuram la daan jaar eh, mu ñëw Eh, ngir ànd ak ñun ci cosaanul sañcub dëkkub Madina mbooba yaakaar naa ne eh, lim ciy indi eh, bu ko indee danañ xam ne sëñ fallu waxuma la sax fitna yi ak coono yi sëñ Fall doon nettali waaye ñëwug Madina boobaam képp doyoon na coono ci àdduna laata gis dëkk bi kon sëñ Fall ñu jox la kàddu gi. auzu billaahi mina seytaani laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi alil asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki julli di ñëw ni di nuyu di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifatul am di ñaan sun borom yàggal ko fi te dolli ko kàttan ak wér ba mu àggale naa li muy liggéeyal Sëñ Tuubaa dañ ànd ko ak moom di wëlbati ko mu àggale li mu Sëriñ Fall te ñu ànd ko ak moom di jiital nuyoo bi ci teewaayu jotaay bii nag sëriñ naa moom sëriñ Abo ak sëriñ Fallou ak sëriñ ma sëriñ Moustapha di nuyu mbokki taalibe bi fi teew ñëpp ak rajo yi ak tele yi di leen dalal fii ci màddina Mbooba ci dëkkub Seex Moodu Fadal waaye ci kër sëriñ Abo Baraka jëwriñam te sëriñ bi joxoon ko ndigal mu nekk fii ñu leen nuyu ci turam di wax nag sëriñ Fallou Galas euh, ñu ngi déglu waxtaan wi dina xam ne ñu ngi koy defee fii ci Madina Mbooba maddina Mbooba nag buñ koy wax mi ngi bokk ci arrondissement Colobane Saloum bokk ci région de Fatick départemental Gossas ku koy dégg te xamoo ko boo jógee Touba route bi jógee Mbacke jëm Kaffrine boo jógee Mbacke ba ñëw fi ñuy wax tiib boo ko rombee boo ñëwee ba xaayaan boo njëkk bi ñuy wax Mbadianeen boo gisee table bi am na benn tali bu xong moo jëm si ci Madina Mbooba boo jegee jógee dëkk bu ñuy wax Kaffrine boo ñëwee ba Colobane boo ko génnee jëm si Mbàkke boo dawee tuuti da nga jot beneen tali bu xong moom itam ci sa loxo ca ndajoor moo jëm si Madina booba kon ñi ñuy déglu Madina boobu foofu la toll ni ko sëriñ Fallou bu sa Tamba waxee nag xam naa day ndigal rek waaye sëñ Fallou mënoon nañ koo jox rek mu continuer waxtaan ba keroog eh, timis di jot ndax li mu fi wax moom moo daq déglu gi moo daq ci li ñu fi wax ñun kon ñoo ngi leen di seeral ne nit ñi ko sëriñ bi sante woon ñu yëgal ko mbokki taalib yi nga xam ne si ñoo ñu dend ak ñun ci ñu ñëw teewe si jataay bi sëriñ Fallou defe nañ ko noonu mbooba sëriñ Abdou Karim Lam jóge na fa ak délégation am sëriñ Alaaji Badiane jóge na Mbadiane ak délégation am sëriñ Modou Seck xaayaan jóge na xaayaan ak délégation am monsieur le maire Amath Diop bu Colobane di maire bu bees biñ ko ko waxee dafa fekk mu demaat mission waaye yebal na fa délégation boo xam ne si ñoo ngi nii di doole ak si nii ki ko jiite ba amal gise ak alaaji Babacar Ndiaye ak ñim àndal ak mbokki taalib yi nga xam ne si mooy dongay tër bi yi nga doon yëkkati xasida yi ñu ngi ne teew ak magi dëkk bi ki ci bu ñu ci tuddee Serigne ñoo teew ci jotaay bi ginnaaw loolu nag kon ñu dugg ci li nga xam ne moom la Serigne Fallou wax ci li nga xam ne si mag ñi ci lañ ko dégg ci ñoom ñi nettali ko dañoo wax ne Cheikh Mamadou Fadal sëñ Fallou bu sa wax na ko bi muy ñëw fii ay natt rek moo ko fendi woon ak wéet bëgg liggéeyal suñu borom ak yar njaboot gi am benn xaritam boo xam ne commandant woon bu nekkoon Kaolack mm-hmm. moo ko ne woon day boo ñëwee Saalum da ngay fexe ba am kayit ndax bokk na sañ ci dëkk bi it seeti woon baayam ba xaritam ba sëñ maam Cheikh Anta ca Chegu te kooku digal ko ne ko boo ko bu fekkee ne da ngay ñëw Saalum ndax ba ko bëggoon a ñu ne boo amut kayit bu jóge mandarga ne Saalum nga dëkk doo fa mën a dem. kooko wax ko loolu mu lijjanti këyit nag bañ may ko suuf si muy madina booba loola moo bokkoon na ci sanc madina booba ba mu ko defee nag bu am këyit woowoo mu jógee Touba di ñëw wax nañ ne ba mu jógee Touba mi ngi jaar boobu dëkk bi ñuy wax boobu Mbacke kër sëñ Balla Joor saafante fa moom jegonte fa jaar dëkk Buré ak Mbayeen ñëw yoor yor fii ci mbooba fekk fa góor gi ñuy wax Mor Ndiaye Jama mu nuyente moom mu nekkoo ko foo jóge mu ne ko Touba mu ne ko mu ana kan mu ne ko mu Cheikh Sëñ Mamadou Fadl mu ne ko ah sa sa nijaay ji sa mbokk ma de sëñ bu Bousso ñoo bokkoon daara daal di koy dalal mu ne ko foo jëm mu nekk ko dama bu may seeti rek soriwul daal di ñëw ba fii ci madina booba gii fii daara daaray sëñ Cheikh Oumy ji tollool mag ñi wax nañ ne foofu genn rat moo fi nekkoon fi la jëkk a wàcc daal di fekk fi benn pël buy sàmm mu laaj mu lakkante moom ndax nañ suñ fal lépp lakk wëpp la déggoon ba mu lakkante moom mu ne ko noo tudd mu ne ko gunda mu ne ko ana wolof yi fi gën a jege fii mu ne day ku ñuy wax njaga jaañ ak ma fëri njaay ak sëriñ sëriñ sëriñ Ibrahima Demba Guèye ñoo fi nekk mu nekk ndax mën nga leen a mu ne ko pël ko ndax mën nga maa xoolal samay seen samay nag yi sëñ Fall ne ko waaw pël ba daa dem wooyee la ko sëñ Fall di ko xoolal nag yi ba mu ñëw ba mu wooyee ñetti mag ñëw ñëw benn ñëwee ñu ne ko ah sëñ wut fi mu leen lu ngeen di wut fi ñu ne ko ah doon doon si wut fi ñu liggéey may mu ne leen am ngeen wéetal loolu moo doon noon sabab ñoo ñoo ñett la fi jëkk fekk ñu daal di ko fi fàqal am ngeer defal ko fi mel mbaar mu yend fi ba jant bi so mu waraat aw fasam ba muy ñëw ndax wax nañ ne sallallahu alayhi wa sallam ba muy gàdd Ababacar la àndaloon moom it bi mu fi ñëw góor gi ñuy wax euh, sëriñ Mbaye Cissé hmm. moom la àndaloon moo ko doon sant ca fas wi ñu indi fa ba ngoon ñu delluwaat kon loolu mooy yoon wu jëkk wa hmm. ba mu fi dellusiwaatee nag ba waral sanc bi mi ngi fi jëkk andi ku ñuy wax sama waajur sëriñ Modou Ndiaye ndek si wàcc ko ca daara ji ak sëriñ Gora Ndiaye ñooñu la fi jëkk a dëgal ñu nekk fi ginnaaw bi mu indi fi sëriñ Bara Gueye ak sëriñ Mandiaye ak sëriñ Ibrahima Demba ñoo ñoo ñu fekkoon daal leen di woowaat ne leen ngeen jege si dëkk bi loolu mooy sancub dëkk bi ñu daal di tàmbali nag daara yi nga xam ne si sëñ Fallou moom nga tiim yooyu la fi sëriñ bi jëkk jëkk a installé ci ay daara bind na ci kayit wi ne yéen mbokk taalibe maa ngi leen di digal ne ngeen euh, tool bu ci nekk ngeen farlu te te jàpp ci liggéey bu baax te kenn ku ci nekk na ngeen farlu ci liggéey bi te xam ne wóor na ma ne incha allah li ngeen bëgg da ngeen bala ngeen a sonn daal di wax ne ne tool bu ci nekk maa bëgg ñu defee ko nii daal di lim jëwriñ yi daal di ne tool bu ci nekk ku ca bokk na nga daal wax jëpp bi muy Ablaye Diop. Ablaye Diop nag buñ ko waxee sëñ Galas mi toog am na daalibe bu ñuy wax ab Ablaye Diop maamam moo yoroon daara jooja ak ku ñuy wax sëñ Madior Fall sëriñ Madior Fall mooy bàyyi Moodu Fall ak sëñ Mbay Atta ak Seex Ndindi ca euh, ci Ndindi la dëkkoon ak ku ñuy wax Alsane Diop juróomi daara yooyu. la Serigne Fallou bind fii ci boppam bind mi dafa raaf waaye dafa bind bu noppi def signature ci ci suuf ne man Alaaji Fallou Mbàkke maa ko maa wax lii mm. kon loolu mooy euh, sanc Madina mbooba ci 1932 bi nga xamee ne si dem nekk nañ ci loolu ba ne bañ àgg ci 1965 sunu jàmbaar ji Alaaji Aboo Mbàkke Falilu ci la ko Serigne Fallou tànnee andi ko fii ci Madina ndax booba natt yi ngeen wax fii loolu moom ginnaaw Serigne Fallou wax na ko ba noppi jaan ko jëru fee jaaraat waaye sëriñ bi daal toog na fii hmm. ba jant bi so te du fi tàkk toog na fii ba jant bi so sooy seen bàyyi muutu seen la daan yónni mu wër ci pël yi dem wuti meew Souley nag bu amut bu demee ba jub dëkk bi day yëkkati xasida bu ko sëriñ bi déggee ne ah Souley a da xam naa day wax ni day yëgle ne ah tey dara amut ah, toog na fii moom Cheikh Maodo Fadal ci ay natto ak i xat-xati jamono comme ni nga ko waxee mm-hmm. mu toog ba dara amut ci kër gi ndax lu fi ñëw mu joxe waan ko bay yëkkati bind maami Serigne Cheikh Colle ki jur waay juróom wu jigéen nekkoon korabaan gi mu ne ko dama bëgg nga abal ma ràng ngurus bu baax ak i lam ndax dama koo bëgg a tey fi barab ndax dugub dafay amut laaj bu metti te munta ñàkk li ma la wax def ko dana baax incha allah kon kooku natt yi ngi ci wax loolu firnde la ci biñ demee ba 1965 nag si la am na fukki at benn bi fii la jëkk a waxee ne maay maay borom Tuubaa wax ko mag ñi ci madina ndax dañoo wax ne dafay toog fi fii fii ci fii booy dugg si ni xóot-xóot bii ngay gis fi la defoon néegu xalwatam fii moo doon néegu boppam néeg bi mag ñi wax nañ ne Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Basir Cheikh Mamadou Mourtala bokk nañ fanaan fii jóge tiib boobu ittee lañ yëkkati woon ittee ja sëñ Basiru la jóge woon sëñ Basiru laaj sëñ Modou Moustapha ñu nekk ko mi ngi ci tool yi ci Kayel mu yónnee fa ànd fa dem fa moom yitte jooju fajuwut mu ne ko fooy dégg Mouhamadou Fall mu nekk dégg naa ko sancam bii ci Madina si sawet ñu topp guddi ñëw ba ñëwee ittee la indi woon sëriñ bi ne bala ngeen a dem da ngeen a fanaan bu ngeen fanaanee li seen itte ji ngeen yoroon da ngeen ko faj dana faju ñi daal di fanaan ba fajar sëriñ bi faja leen itte joojee ñi daal di yeewu ko waa dem yaakaar na ne du ma wax ne ñetti doomi sëriñ Touba wala ñeent bokk fanaan ci benn néeg bu fekkee ne am na it man fii laa dégg ko kon loolu bokk na ci taarixu dëkk bi ñu ñëw ci jàmbaar yi nga xam ne si mooy seex aboo nag bi nga xam ne bii la ko fi sëriñ bi indee 1965 lim fi sëriñ Fall bàyyi woon ndax ba muy dem wax naa le dafa waxoon ne maay borom Touba te ñaari benn at la ko wax ca déwén sa la si mu dum sama wàcc liggéey mu nekk xalifa kon loolu la mu waxoon ne maay borom Touba fii loola la xamoon mu di ko waajale delluwaat ndindi ci la indee sëriñ Abo nag ne ko damaa bëgg dina googu maa fa nekkoon te mënul faa nekk te doyi nga ma bàgg nga nekkal ma fa nekk fa taalibe yi ñuy say taalibe ngay seenub sëriñ luñ la wax nga def ko su fekkee ne loo mënul la nga ñëw ci man ñu bokk ko def ci loolu la sëriñ Abo nekkoon ba jant tey bii lañ daan dindoo ci sëriñ Fallou luñ luñ soxla wax ko sëriñ Fallou sëriñ Abo ci lañ yem ba tey lu lu bëgg soo ko waxee mu faj ko te du la laaj dara dëkk bii ba mu ñëw ndox amu fi woon benn teen a fi nekkoon tund wépp ci lañ doon roote jigéen ñi ci dëkk ci dëkk ci teen bi la ñuy fanaan ba ba xaaju guddi sëriñ bi loolu met na ci xolam loolu ndekete mu téye ko moom sëñ Abo jamono sëñ Iblaat la fu nekk dem na fa ñaant forage dem na wax na ko sëñ Iblaat la ko soo sottiwul mu wax ko sëñ Modou bu sa jëm sottiwul mu jëgal sol daal boppam dem ba ci ministère bu ñuy wax Samba Yara Diop mu waxtaan ci ak moom mu nekk ah loolu de sëriñ bi dama ko yëgutoon waaye boo yónnee woon nag wax ma ko loolu dana faju mu nekk noo ko bëggee mu nekk daal ab forage laa ndox dong laa yittewoo mu nekk na la leer na ne bu la fii ma toog boo gëmee ne sa sa baay moo ma fi teg xamal ne am nga forage ba noppi waaye bit bi ñu wate woon dafay jeex waaye budget bii di ñëw su ma foll koy dinaa fi def signature boo xam ne si ku ñëw bu dee da danga am forage ci loolu la sëñ Ebo tam jëkk a tàmbalee liggéey ci dëkk bi ndox te ndox mooy lépp ba mu fa defee loolu tàmbalee fi sos ay daara moom itam ne fi sëñ Fall doon def di bay ku fi nekkal sëñ Tuubaa mu jox ko ko sëriñ Abo ci loolu nekk ba jant tey di sëñ lu ñëw muy xalifa sëriñ Fall yàlla na fi yàgg te wér loolu nag ñun mag ñun fi jëkkoon a andi ku ñuy wax sëriñ Modou Ndiaye ndëkk si la ak sëriñ Gora Ndiaye ak sëriñ Alsane Diop ak sëriñ Mbacke Saloum ak sëriñ si Diop ak sëriñ euh, Mourtala Ndiaye ak sëriñ Thierno Ndiaye ñooñu bokk nañ ci ñu jaar ci dëkk bi sëriñ Fall waxoon ne sëñ bi muy sañ ci dëkk bi ñaare ko fi taxoon mu indi ko fi liggéey ak jànge ak tërbiya ñett yooyu la boole woon dafa sos goroon dëkk bi mag ñi kenn ku nekk mu jox la yi tool nga di ca bayal sa bopp donga yi tërbiya ñi nga xam ne dañoo toll ci liggéey mooy daara juróomi daara yii mu jox leen ay daara ñu nekk ca ñi nga xam ne dañ leen a tolloon tout tànk war a jàng ñu leen jàngal alxuraan daara alxuraan ji ñetti ñi ma ci xam mooy sëriñ buubu faal bàyyi sëriñ Moodu may faal ak bàyyi sëriñ Buso imaam ñooñu la fi ak ku ñuy wax sëñ Moustapha Mbacke ñooñu la fi sëriñ bi njëkk andi ñu ñuy jàngale boobu dëkk bi amul ndox mu yëram tuut tànk mu ne yéen ñi nga xam da ngeen gone ñu ndaw yi de jox naa leen ndigal ngeen dem booba ca teen ba jege fa loola moo waral ñoom ba ñëwee ñu féete foofu booba loola sëriñ Fallou ci tënk euh, ñu yemale ko foofu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, lii rek moo doon kàddu yi Eh, sëñ Falilou ci ndigalul sëriñ Abo Baraka waaye ci teewaay bi sëriñ Cheikhouna ak sëñ Moustapha Fall ak sëriñ Fallou Ndiaye ak magi dëkk bi yëpp ak waa dëkk bi ci teewaayu soxna nday Fall di kilifa kër gi soxna nday Diop ak ñi ñu àndal ñëpp ñu ñëw teewe jataay bi ngir waajal bisu màggalu Kazu Rajab kon day mel ne bis baa ngi noonu ci ci. waayu sëriñ aboo Baraka di jëmm joo xam ne loo ko gën di miin di ko gën di bëgg loo gën a jaxasook moom di ko gën di wekk muy taalibeb sëriñ tubaa bu bëgg sëriñ Tuubaa di ko wàcce boppam ku yàlla yokk nag ay darajaam ndax boo laalee ci sëñ Fallou laal ci Cheikh ma Fall la sëñ Fallou doon wut ci sëñ Touba mën naa sama tegtal ne mi ngi woon ci maam Cheikh Ibrahima Fall kon ku Cheikh Rama Fall di sa maam sëñ Touba di sa maam doxinu kër sëñ sëñ Abo rek nga man di doxee noo ñaan yàlla mu bàyyil ñu ko ci kaw suuf lu yàgg lool te lépp lu mu fi gën a yàgg mu gën a wér te lépp lu mu gën a wér suñ borom gën di doole ay xéwalam ba lépp lum defal sëñ tubaa ban di ko wane loolu de asakay li mu bëgg defal sëriñ bi ci kanamam ci bark barke Cheikhna Ahmadoul Khadim seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo àndoon ak yéen jàkkaarloo ak uh, sunu caméraman sëriñ Fallou Syll ak ñi moo àndal fii ci madinatu salaam di madina mbooba di ñaan yàlla yàlla nañ ko teewaat déwén bis bi dëgmal di ñëw yàlla nañ ko àgg ci al bismillahi rahmaani rahim weesu ko ci alhamdulillahi rabbil alamina lépp luñ ci liggéeyal sëñ Touba yàlla ko sëñ Touba nangu ci daraje Cheikh Mamadou Fadal wassalaamu aleykum wa taala wa بسم الإله يكفيني الأقدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني الأقدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا ملاك